Net Bi TV abonnez-vous seen chaîne bi di Net Bi TV seenu actualité buzz sport religion politique humour musique ak Net Bi TV léppay leer jërë ngeen jëf mbokk ñuy teewlu ci biir euh, net bi TV Sénégal daleen ak jàmm ci xibaar ji Gueye Ndiaye di chef protocole bu Ousmane Sonko ak yeneen ñeenti garde yu usmaan Sonko ñoom nag la yoon daal di teg loxo foofee sa Mbour ñoom nag dañoo fas yéene woon dem rek wutali sa caravane bu njiital Pastef Ousmane Sonko daal di door mu daal di koy tuddee rek euh, caravane de la liberté. ñu toll nag jamono ji foofee sa Kolda ñu jàpp nag fu ñu toll ñu ngi foofu rek sa section de recherche gendarmerie bu mbuur ñuy xaar rek ana lan moo tax ñi daal di leen teg loxo di fàttali rek boobule caravane moom ñi tal Pastef daf koo def rek ngir utali sa Ndakaaru mu ne woon rek gasta gasta bi dañ see dem rek ba jeex tey dañoo fas yéene rek daal di jàmmaroog Macky Sall ndax rek la woon de daal di woon di moom nag jamono ji ñenn si ay àndandoom yoon daal di ne leen teg loxo. lu waral nag ñu daal di leen teg loxo xamaguñ ko mais nag dina leen toppandal xibaar yi fii si nag Bi TV Sénégal ba lépp rek lu furu sene di leen si ñëwaate yéen su suñu yeneen i jotaayu xibaar jaa ngeen